oui bonjour. bonjour euh, sëñ bi naka nga def. ñu ngi sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi lay woo depuis Texas. dëgg la dëgg la euh, yaa ngi en direct ci Sénégal comme ni ñu la ko waxee woon léegi jafe-jafe yi nga xam ne euh, yéen waa Sénégal yi nekk États-Unis yéen a ngi koy jànkonteel boo ci mën dellu si waat pour ñu lay seetaan. jërëjëf soxna si ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yéen waa Sénégal di rafetlu seen woote di leen baalu àq ci ak weer wu weer bu weeru koor gi nii vraiment kontaan yi ngeen yokk tuuti waaw dëgg la donc yaa ngi dégg bu baax maa ngi dégg waaw maa ngi dégg voilà ma ne ñu ngi leen di nuy yéen waa Sénégal di rafetlu woo bi ngeen ñu woo ñu mm-hmm. sant yàlla it ci weeru koor gi ñu dugg nii donc di ñaan yàlla yàlla def ci xewal bu baax a baax a baax amiin waaw donc euh, bitim réew daal ñu ngi fii ñun waa Texas instant bi presque ci maanaam presque fajar bi donc euh, mu metti lool lool lool lool lool lool donc ñuy def ñu nekk ci condition de vie yoo xam ni dafa xaw doy waar. Mhm. donc parce que booy xool donc metti na ci réew yëpp maanaam sénégalais bu ci nekk ci séjour dafa metti États-Unis nag def ci raw. parce que mhm. booy xool ñu bëri dañu ñëw surtout ay ay ay jigéen ay femmes yoo xam ni ay vraiment ñu bàyyi seen njaboot ginnaaw. donc ñëw am na ñoo xam dañu ñëwoon pour ay rendez-vous am na ñoo xam dañu ñëwoon pour seeti seen ay mbokk donc mbir mi daal am ni ñu faf fi toog tumuranke ñëw nag tumuranke bu metti metti metti metti ñëw donc ñu bëgg ñibbi mënuñu ñibbi ñi nekk ci hôtel yi seen xaalis jeex na mhm. donc yokk leen euh, son bi tuuti voilà donc ñi nekk ci hôtel yi seen xaalis jeex ci maanaam daal situation yi daal doy na waar doy waar boo xam ni ñu bàyyit ñu bàyyit njaboot njabooti mhm. Dakar donc Sénégal laay wax sax donc am na ci ñoo xam ni seen ay doom lañ fa bàyyi seen mhm. ay doom yi ñu xam nga nga bàyyi njaboot ginnaaw dafay metti dëgg la voilà donc euh, ni situation yi metti na metti yoo xam ni mhm. li ñu bëgg daal vraiment te mooy li ñuy interpeller Sénégal mooy surtout borom réew bi jàpp ci bu baax a baax a baax mhm. mooy au moins mu permettre ñu ñibbisi te ñibbisi bii it booy xool donc euh, ñi ngi sant yàlla fii nag ñi ngi wér ànd ak wér macha allah ñi ngi sant yàlla mais nag. Mhm. ku ci nekk bu doon sa sago nga daw ñibbisi parce que sa njaboot bi nga bàyyi ginnaaw am na ñoo xam ne ay parental la ñu bàyyi am na ñoo xam ne dañu bàyyi ay doom yoo xam ne wéruñu et ku ci nekk da koy xool sa bopp. Mhm. voilà am na ñoo xam ne def nañ fii ay cinq ans euh, ay cinq mois am na ñu def ay deux mois am na ñu def ay trois mois am na ñu def ay années ñooñu ñëwaguñu waaye ñi nga xam ne dañ demoon ne maa ngi seen njaboot maa ngi dellu si mbir mi am mënatuñu ñëw donc day compliqué. Mhm. donc vraiment président la ñuy interpellé mu am yërmande ci maanaam ci vraiment ay ay sénégalais njabootam parce que ci njabootam la ñu bokk. Mm-hmm. voilà ci njabootam nañu bokk vraiment mu mu mu jàppale ñu ba ñu mën a ñibbisi ci réew mi bu ñu ñibbisee même bu ñuy téye parce que ñi ngi sant yàlla dara jotuñu. Mm-hmm. même bu ñuy téye. d' accord kon d' accord ngeen bu ngeen bu leen dimbalee ba ngeen ñëw ci réew mi ñu confiner leen le temps ñuy xool est ce que seen wérgu yaram euh, kii naak yooyu. waaw mais loolu loolu kañ loolu toog sa réew ñu confiner la kañ déjà ñu ñu mettre la en quarantaine je pense que loolu dara nekku ci. ñun mm-hmm. dara jotuñu. Mm-hmm. mais buñ ñibbisee loolu dafa nekk loo xam ne même buñ ko waxu woon ñun ñoo koy proposé. Mm-hmm. parce que loo xam ne day valable comme ñi ngi koy defal ñeneen na valable ci ñun donc buñ ñibbisee toog quatorze parce que nga toog sa booru kër def un mois ñu téye la noonu moo gën nga toog foo xam ni fii gisoo fi dara. Mm-hmm. lii sax boo sàgganee mën na la indi dépression. voilà sa ay doom déjà mënuñu la jot sa ay am di jàng kenn mënu la gis ci loo xam ni wax dëgg yàlla daal chef de temps ñi ngi koy ñaan. ci yërmandeem parce que it ci njaboot gi lañ bokk. Mhm. ci ci yërmandeem parce que bu ko bëggee rek volonté boobu war na ko mën a def parce que sa volonté Sénégal am na ko chef d'état aussi am na respect ak liberté boo xam ni war na mën a ko war na ko mën a exercer ci monde bi. Mhm. bu bëggee ne sama sama njaboot gii dañu war a ñibbisi matuñu même pas quarante wala cinquante personnes États-Unis. d'accord. ñoo xam dañu yor seen ay billets nag parce que li ñu koy ñaan mooy. ah d'accord kon yéen yor ngeen billet boo xam ne donc kenn du leen fayal billet leen li ngeen bëgg rek mooy ñu mettre leen dans les dispositions ba ngeen mën a ñibbisiwaat Sénégal. mais tout simplement madame donc loolu rek lañ soxla ñii ñi yor nañ seen ay billets ñaanuñu demandé wuñu pour ñu jox ñu avion boo xam ne état bi moo koy fay wala dara loin de là ñu ngi suñuy billets. Mhm. liñ koy ñaan mooy maanaam mu permettre au moins. xaw ma ndax publicité la wala dara ñun bu ñu ñëwee par Delta. Mhm. Delta di desservir au niveau des États-Unis mais nañu ibbil au moins cas exceptionnel. Mhm. dañ naan mesure exceptionnelle eh, mesure exceptionnelle lay nekk. mu permettre au moins de quatre euh, quarante wala cinquante personnes yi nga xam ni ay mères de famille lañu. ay mhm. pères de famille lañu mais surtout mères de famille parce que jigéen. am na loo xam ni mënu ko attan. dëgg la nga bàyyi sa sa sa njaboot ginnaaw loolu sa ay maanaam si dafa dafa compliqué. Mhm. donc nga nekk xaaral ci yërmande ñii damay ibbi ñu mën a ñëw bu ñu ñëwee ba egg si Dakar ñun suñu bopp nañ dajaloo dem toog fenn ñu xam suñu njaboot yi xam nañu seen seen ay wajur ñëw nañ mhm. loolu rek rek la ñuy donc je pense que encore une fois cri de la. Mhm. bu ñuy demandé. wax dëgg yàlla di laaj aussi Sénégalais yi ñëpp jàpp ci di ñaan yàlla aussi yeneen réew yi képp ku fa nekk état bi mën a organiser wu ay ay ay ay njabootam dellu si. Mhm. Euh, maa ngi jokkoo sax ak euh, kenn koo xam ne yéen nekk foofu muy benn soxna boo xam dafa bàyyi fii Sénégal ay séexam. Euh, ñëwoon foofu fa la ko yëf yi mujjee fekk nag moom tam mënatul sax ñibbisi ak keneen koo xam ne it da doon accouché mais pour bañ ay kayitam yàqu ndax xam nañu états da nga fa toog sa papier mën na yàqu dafa mujjee dem ba Congo ngir accouché foofu. si. Mhm. parce que aussi sa sa séjour ñu may la par mhm. ñu may la six mois. donc nga nekk ci balaa muy jeex dañu war a génn donc situation boobu bu amee mënoo génn day nekk loo xam ne en fait c'est stressant dafay am mën na la indi c'est dépressif en fait. Mhm. loolu bu amee aussi nga bëgg fa génn di wut courte courte courte ngay wut situation pour génn foofu di dem beneen dëkk loolu moo gën a moo gën a ñàkk wóor sax. dëgg la parce donc je pense que Sénégal chef d'État bi donc vraiment consul bi mi ngi def lu mu mën. aux États-Unis ambassadeur bi vraiment ñu ngi def lu mu mën. Mhm. ñu ngi leen di féliciter ñoom ñëpp mais nag pouvoir décisionnaire bi nga xam ni moo am bu mujj bi chef d'État moo ko am donc ñu ngi koy interpeller di interpeller soxnaam parce que ku ci nekk moom it njaboot la. Mhm. bu déggee cri de cœur bi kat war na xam ni njabootam ñu ngi des àll li ñuy ñaan ñaanu ñoom avion bu ñu ku ñu fayal avion wala dara mais yor nañ suñu ay billets d'avion organiser suñu vol boo xam vol bi bu desservir États-Unis mën a wàcc Sénégal. Mhm. bu ñu matee même pas cinquante personnes ñun nañu confiner nañu mettre en quarantaine ñu toog dara jotuñu nag ñu ngi sant yàlla. d'accord mais au moins ñu jege suñu lëkk xam ni loolu bu paree ñu dem ñibbi suñu njaboot. Mhm. loolu rek la ñuy ñaan. d'accord leer leer na yal na li ngeen di ñaan yàlla tam def leen ko te it. président Macky Sall jël allahu amin vraiment ñu ngi leen di ñu ngi leen di remercier aussi yéen ñi nga xam ne bi. ñu mën a wax ak askan bi merci beaucoup yàlla voilà euh, di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm di ñaan yàlla ci chef d'état lii ñu ko ñaan yàlla ñu ko defal parce que Seydina Muhammad amin jërëjëf jërëjëf